ah man da xanaa aaxiru samaan mooy waaja nag man ngi de si tët tët lii yëpp waxoon nañ ko de si nañ ci de ab xale bu ndaw toog fi mu toog tanaan yent bi toogoon na fii te nit ñaa ngi koy gis de xam naa ne papaam yaayam bu fekkee ñu ngi dund de responsabilité bu rëy rëy la bu fekki lii muy wax nii daal dëgg la wala du dëgg na leen leer na responsabilité bii daal mu ngi ci seen ndodd yooyu noonu xale bu ndaw xongo cooy demagul fenn taxaw publiquement ci kanamu 18 million habitants te naan voilà yent bi toogoon na fii ngeen toog ah duñ ko weddi ne ndax yàlla maye na lu nekk waaye teel na de ndax xale nga yaakaar naa ne nag réew mi bu demee woon ni mu war a demee dëgg xale yii nii yëpp di am lu ñuy xëcc danañ dem ñu jéem leen a defal formation ngir bu màggee ñu mën a am ci luñ jàpp xoolal tubaab yi occidentaux yi bu seen xale yi maanaam maanaam bu ñuy toll ci dix-huit ans ci la ñuy commencé di créer yoo xam ne ni bala ñuy dem benn trente ans wala benn cinquante ans mu mu mu mu mu ñu mën cee doon milliardaire parce que loolu mooy bu ñu gisee xale bi di commencé defar yoo xam ne ni xam nga ñu xam ne kii am na loo xam ne nii mën na ko apporter boppam apporter ko am réew dañ koy jàppale dugal ko ci ay formation yiir ko jàppale ko waaye nag ñun sunuy xale dañuy teel bëgg affaire yoo xam ne ni daanaka mën naa ne matewuñ ko eggugun fa voilà maanaam ab xale bu ndaw daa war a jàng ji ndax yow bu fekkoon tey jii eh, li nga am ca say at buñ ko génn woon say at maanaam li ngay wax ne buñ ko génn woon say at moom daanaka mën naa ne voilà waaye bu fekkee nag tey jii da ngaa dem ba maanaam jàpp ni maanaam yow eh, yaa ngi wax ni maa ngi toog nii yeneen baa ngi toog nii ci wax joo xam da nga ko wax nii rek wanoo ñu ñu gis loolu dafay nekk loo xam ne nii wax dëgg yàlla ak réer mënu ko weesu te nag loolu dafay fekki waxi mag ñi nga xam dañoo waxoon ñi ngi jëm ci jamono ju gàtt joo xam léegi mu yegg yegsi ay ndaw ñooy toog di sañ fen lu leen neex te dara du leen ci fekk ngeen baal ma voilà léegi nag euh, nga xam ni euh, li ñuy wax yeneent bi wala ay nit wala ay xale yu goog dañuy génn di wax ci yonent bi naan yonent nga xam buñ ko waxoon ñeneen rek ñu dal ci seen kaw teel leen a freiné voilà te tey kon bu waxee lii kenn waxu ko ci dara bu ëllëgee boo waxee leneen bu ko kenn wax dara voilà parce que dafa am loo xam ni xale bu fekkee sax lu koy ñëwal la mi koy gis nañ ko jéem a ber xool ba xam li muy wax lan la parce que dafa yomb léegi Sénégal ndax xam na ni gis na ni ay nit dañuy toog yor seeni bant ki seeni kaang moo tax xale chaque jour nañ cey wan loo xam bu ëllëgee mën na cee adapté mais bu fekkee ñu ngi gis ay nit ñoo xam dañu yor seeni i kaan yor seeni téere téere nekk ci seeni i ruq yor seeni i kat di iri nit ñi di leen nax di dox ci seen i xel xale bu màggee bu gisee ni ñooñ ñu ngi ciy teg ci loolu la jëm kenn du fi créer dara du ñu créer dara du ñu apporter Sénégal dara lu du sol seen yére yu rëy rek di naxaate di dox ci xelu nit ñi loolu baaxut